net bi tv abonnez seen seen bi di net bi tv seenu actualité buzz sport religion politique humour musique ak euh, net bi tv léppay leer léegi nag euh, dafa am euh, comme suba la élection yi yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm ñu def ko jàmm yàlla defal ñu ndam que le meilleur mooy Yewwi Askan bu sàcc amul amul leneen ñu ñuy confisqué ñu def vote normal Yewwi Askan Wi da leen di làbbali da leen làbbali lu ñu ne caw cawaat dinañ leen caw cawaat amul sa sikk sàkk xaw ma nag bu ci leen amee te leneen li ngeen ci nar a def tamit nit ñi ngi koy pare nañ lépp jaar ci yoon ku gagné ñu xam ne c'est la démocratie ñoo ñu dem jiite assemblée ci jàmm dafa am vidéo bu ñu gis sànq ñu wane ko ci réseau sociaux yi defe naa ne lii rek leer na. Benno Bokk Yaakaar maa leen di nuyu di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax a baax euh, di leen wax ne fii jamono toll bu leen kenn bett xool leen nii rek la nag waaw nii rek la euh, fu fi waay toll da nga xam ne yow ràññee nañ la ci sopp Macky Sall rek.

procureur nga koy dégg bëggeel ma waaw defe naa ne loolu leer na euh, gis ngeen ko sénégalais yëpp a ko gis kii nee na ci APR la bokk Macky Sall lay dimbali mu génnee jaas yi ñëpp di ko dégg ñëpp di ko xool mun a jax rang dara du ko ci fekk nit taxaw na publiquement ne nañu rendi Ousmane Sonko dara fekk ko ci nit taxaw saaga ko dara fekk ko ci nit saaga xeetu lëmm dara fekk ko ci loolu ngeen ne ci dëkk bu normal loolu du impunité maanaam ku far ak man lu la neex defal keneen ku farul ak yow loo def tey nga dee lii man leer na ne jaañ solution bu doon maa génnee jaasi sama kër lañ may fekk si bu doon keneen a génne jaas ku bokkul ak ku far ak Macky sal leer na ne jaasi gi doo doo yendu tey sa kër lii nag yéen a ko gisandoo seen bopp mu ne ku ko ku leen nar a kii kan moo fi wax waxu rebel kan moo fi indi rebel kan moo fi wax waxu rebelle Ousmane Sonko képp ku ko dégg mosoo ku dégg mu wax ci waxu rebelle même Bignona bi mu nekkoon nga xam ne ne secteur boobu lañ naan moo gënoon dangereux wax na fa clairement lii mébétam ñoom seen bopp ñooy créer ak di wax wax yoo xam ne ne pour mun ne indi ay mbir ci ay mbiru rébellion nangam ñun li ñuy ñaan yàlla mooy jàmm li ñuy ñaan yàlla mooy sutura lu ñuy ñaan yàlla mooy jàmm ak sutura yàlla def ci jàmm ci réew mi jàmm lañ soxla gis nga lu dul yàlla lu dul euh, jàmm jàmm ko gën yàlla diine lislaam jàmm la bëgg nañu indi jàmm ci réew mi Macky Sall moomul réew mi Macky Sall na wax ak ay wàllam bu dee nag dafa yaakaar ne mu ngeeg armée bi mu ngeeg police mu ngeeg gendarmerie mu ngeeg euh, justice lu ko neex mu def wala ay mbokkam lu ko neex ñu def dëgg du yoon na yemale yëpp moom sénégalais la ñun sénégalais lañ na jox kenn ku nekk luy àqam te mënul fexe fexe fexe fexe fexe fexe ba du fi jóge mu neex ko dina fi jóge mu naq dina fi jóge kon na rafetal jógeem fi ak jàmmam lii yéen a ko gisal seen bopp ana nañ ñan lañ fi jàppee ne na ay force spéciale ñu ne dañoo yaakaar ci ñoom xam nga kii moom kenn yaakaaru ko daf ko génnee ne ko bu xeet amul yaakaar li ne teg bët lu ne ne fàng kenn du ko jeex moom dafa ne fàng ay mbiram kenn nëbbatuwut ñee mun nañu ne dañ doon nëbbatoo dañ doon nàngama dañoo yaakaaroon nag dañ doon dugal ay message ak message bi dañ dugaloon ay dañ dugaloon seen message ne ay force spéciale lañ ak ay nangam lañu loolu yëpp mun na nekk mais lii moom kii moom lu mu wane la kii moom kon force la bu mu wane bu ñuy wax nag ne dafa dof dërëm jot ko lu oqul dërëm oq ko gis nga li ñuy wax ne ay dofa dof ak wala dafa nangam sénégalais nañ bàyyi loolu bu doon keneen bu doon jaañ ñu ne dofu xanaa kon rebelle lay doon comme ci côté Ousmane Sonko la bu doon keneen ci yooyu lañ leen wax loi yi ñu doon wax ne ay loi terroriste ak ay nangam genre gi waruñ fanaan seen kër dañ dinañ leen bàyyi dara du ci xew parce que ñoom ñoo yore yoon ñoom ñoo yore dëgg ñoom ñoo yore lépp nañu artu Pape Alé daan na ko wax ku te nañu bàyyi ñii ndof ndoflu gi ñuy def dofuñ dina jàppu leen dara moomu leen ku nekk am nga droit protéger sa bopp ku nekk am nga droit aar sa bopp mais xanaa da ngay aar sa bopp ci loo xam ne dañ ko jëmee ci yow te suma benn maam dafa ma doon wax nee nañ xare badar xare yi fi am uxut ak yëpp ci yonent bi ñu ne yonent bi mosut xeex ñu ne ko déet daan na xeex mu ne daanul xeex da doon fayu du woon xeex di jëm ci yow mais day défendre boppam kon nag ñii bu dee défendre sa bopp loolu nag moom la ñuy wax ci bu ngeen ko xoolee ci président Ousmane Sonko lu nekk ñu ngi ko koy yekk léegi bu waxee ñu indi problème bu nee bu leen foyee seen bopp wala nangam ñu ne déedéet moom mooy wote ja moo wootewul càmm lu wa nangam moom e, violence la indi waa léegi nag da ngay toog ba ñu rey la nga door a toog ne ne ay violence nangam ak nangam gis nga àdduna bii ñu nekk lu dul fulla fulla ko gën ku dof-dof la ba ñu rey la yaa koy yëg ku dof-dof la ba ñu rey la yaa koy yëg ñoom moomuñ nit ñi juruñ nit ñi gënuñ nit ñi di dof-dof la di yor ay jaase di yoru nàngam du ñu def ni yëfu nit mbiru wot la ku nekk na génnee dem vote ci jàmm ku gañe gañe la senegal continue bu ñu gañee sax waa yeewi ñoom waa yeewi dem lem seen ngeen xam ne ne woow nañ Sénégal yi senegal yi gëmuñ leen jox ñu ñu gëm mais leen lépp jaar ci yoon ñu dem ba des élections presque ñuy ne amul gisuñ fichier ana fichier bi ñan ñoo war a génne fichier bi muy waa nguur gi ba léegi kenn xamul lu xew ndax lan ba pare ngeen ne loolu kenn du ko wax te kenn du ko ci wax nag amul kilifa gu ñemee taxaw ne loolu est-ce que dëgg la wala du dëgg lu toll ni fichier électoral ñuy dem élection ba léegi mënul kenn mënul xam li ci nekk ëllëg ñu bëgg a taxaw wax dara loolu est xel nangu na ko te lépp waroon teel a leer te lépp luy procédure wala lépp luy code électoral mooy loolu yëpp li lépp dafa war a leer lu ñëpp xam mais loolu yëpp ñu ngi koy jaay ci parti ñoo yore doole wala ñoo nangam ñu ngi nax seen bopp nag ku dul yàlla yoroo doole fii yàlla rek a yor doole te nguur ku dul nguuru jinne dana jeex moo tax Macky Sall na revenir sur terre xam ne li mu yor dana ko joxe parce que ñi ko gënoon ñi ko ëppoon doole dañoo yore dañoo joxe li ñu yor parce que dañ leen dénkoon suñu borom ku neex lay dénk ku xool nga ko ci président Ousmane Sonko bi ñëwee ci politique yàggul mais waxal leen li mu am ci politique kan ko am parce que tax loolu parce que li ñu nekkoon mooy dëgg gis nga boo nekkee ci dëgg yàlla moo lay taxaw yàlla moo la jàppale yàlla moo lay suturaal looloo tax fu mu dem rek ak luñ ko munti génnee rek yàlla génnee safaan démb am na vidéo bu ñu gis ñu ngi ne moom mu ne da doon def xaw ma euh, nu mu ko mën a wax di da doon wax noonu. lim doon wax da doon euh, kii noonu rek nu mu tuddati euh, da doon tourner tournage boobu ndeke moom lañ jël dugal ko pour yàq sa xel ci nit ñi toujours ñu ngi créer ñu ngi manipuler lépp lu ñu mën a def pour yàq ko. billaahi bu yeeboo Macky Sall ak ñi wër ñi ko wër nañu dal gis nga koo koo narut a yàq ku yàlla yàqul wala ku nar a kenn mënu laa defal kenn mënu laa yàqal Ousmane Sonko yàlla koo defal. yàllaa koy sàmm yàllaa ko mën a yàq xam nga lu tax ku nekk ci njub yàlla moo lay téye boppam képp ku nekk ci njub billaahi yàlla moo lay tax taxaw moo tax nañu delloo si waat seen bopp delloo si waat àdduna yàggut nguur yàggut dara yàggut kenn ku nekk yaa ngi am ay maam ay tànt ay rakk ay jarbaat ay lu nekk mu ngi fiy génne àddu di la fi bàyyi te li ko li leen yóbbu du la fi bax kon nañu àndaat ak dal àndaat ak yar àndaat ak kër man xeexloowuñ kenn xoloowuñ kenn saagaloowuñ kenn du ma xeex du ma xuloo mais ku ma dóor ma du ma saaga du ma xeex du ma xuloo mais ku ma dóor ma fay parce que nag kenn dox fi mais nag kenn loolu moom na ko ñëpp xam nañu def ndànk ànd ak dal lii léegi mu jeex mu féetoo bor Ousmane Sonko sax même bu ko fi yàlla indi 12 ans da ko fi weesu dafay bàyyi réew mi keneen jiitu ko du ko yeggali 12 ans la fiy def bàyyi fi réew yi keneen ñëw kon loolu lu ko fi jar. kon moo tax nit ñëpp ànd ak tal ànd ak sérénité man loolu laa leen di woo tey jii nii dama dégg euh, Ousmane Sonko am lu mu wax balaa ma ñëw ci Ousmane Sonko lu mu wax ci affaire pétrole beeg yooyu dafa am sunu lu tax ñu war a voteel Yewwi ñu ne parce que dañoo am confiance ci ñoom confiance boobu yàlla bu ko yàlla tas ñu ne tamit ñoom Yewwi bu ñu ñëwee tamit pour nga voteel leen. lépp luy confiance bu ñu amoon ci ñoom yi yàlla bu mu ci ñoom kon dañ leen voter pour la confiance on va voter tamit pour le rupture pour Yewwi yaakaar nañ ne li fi am dootu fi am pour rupture aussi tamit pour éviter le troisième mandat di nga xam ne ne moom la ñu ruumandaat dina am ak du am li ci kanam rawale bët xam naa ne bu élection yi jeexee moom loolu dina leer ñuy hésiter tamit euh, euh, nu mu tuddati criminalisation loolu tamit ñu ngi ci wax waa wallu ñoom ñoo ne bu ñu leen joxee dinañ criminaliser homosexuel homosexuel moom du fi mos a am du fi mos a am ku mu neex góor jigéenal yaa xam nëbb ko sa sa vie la am nga ci droit nëbb ko mais nag fu ne mu fàng loolu duñ ko mos a nangu te duñ ko mos a accepté góor jigéen faramason ku mu nekk am nga droit nekk ci lala neex nga nëbb ko yaa xam sa dund la kenn du la ko bañal mais nag ñun suñu dund lu ne fàng ñu koy teg ñu ci di teg bët loolu kenn du ko nangu fii ci réew mi réewu Cheikh Ahmad Bamba réewu Cheikh Maam Maodo Malick réewu Maam Baye Niass Limaamu Buu Kunta ñuy nangu lépp dina fàng loolu moom du fi mos am bu yeboo sax nañ ñem Macky Sall laaj nañ ko ci may ba léegi mënul wax lu ay tànk maa ngi fii loolu duma ko mën a kii da nga ne du am loolu du am Ousmane Sonko dañ ko laaj mu ne moom bu ñëwee lii dootu fi am dañ koy criminaliser loolu mooy leer moo tax maa ngi dégg ñu ne am na ñu ko signé ak ñu ko signé wul euh, mémorandum bi nga xam ne ne waa aar am sàmm jikko yi defoon nañ ko ñu ne ñu yónnee ko parti politique yëpp coalition yi ñu ne benn ñaar ñoo ko signé muy euh, euh, yeewi ak wàll ñu ne ñoom aar ñu ne duñ ko signé parce que réserve nangam lu ñuy réserve signé lu bon dafa jar réserve yow ngay jullit nga fii dañ koy criminaliser ngay ne ay damay xaar ak ay ku nekk ak sa ma ne amul ku nekk sa droit ku nekk du sa droit nëbb ko mais dañ koy criminaliser comme ni ñu criminaliser sàcc bétail beeg leneen ak leneen yooyu dañ ko criminaliser di woo lu tax ñu war a jàppale votel Yewwi pour éviter tamit y a des opposants yoo xam ne ne ay para APR lañ xam nga Ousmane Sonko ko wax na ko ku nekk di tëb di dal moom daf ñu war a respecter gis nga respecter sa bopp jox sa bopp cër di wax àdduna yëpp di la dégg ak Ousmane Sonko li ma gën a neex ci moom mooy bu wa bu rayoon nit sa boo ko wooyee mu ne maa rey loolu muy dëgg gis nga nit li nga def da nga koy assumer loo def lu bon nangu ne ko def sax ñun ñu xam ne ne kii moo tax gis nga lu gën a bon ci réew mi mooy naa fekk di wax loo gëmul di def loo gëmul loo nekk nekk ci nga xam ne loolu yaa ci dundal sa bopp moom loolu moom lu ma neex ci moom lu mu wax ñu ne lii kii lu mu wax ëpp na wala téye Ousmane Sonko tey li mu wax waru ko woon wax nangam boo ko laajaatee mu dellu si waat ci maa ko wax. après même bu nekkee li mu wax sax waxuwul mais day na maa ko assumé maa ko wax loolu mooy dëgg góor day wax li mu wax nga nga ñu lay rey nga nangu ko ñu lay ñàkk rey nga nangu ca ñoom bu ñu leen votélee waa Yewwi mais sunu 6000 milliards yi yiñ doon jiiñ Alioune Sall yooyu du du leer te bu ñu wootewulul euh, Yewwi bi loolu du mos a parce que assemblée rek ñoo ko mën a leeral waa sunu 1000 milliards ci Mansour Faye yuñ ko am yuñ ko joxoon 67 milliards pour ceeb yeeg yooyu loolu du leer wala dañ koy bàyyi noonu mu bañ a leer sunu 250 milliards ci ArcelorMittal loolu du leer sunu cinq euh, cinq cent millions kudd yu Cheikh Omar Anne yi loolu du leer sunu quatre cent millions yi yu IPRES yooyu du leer sunu mille euh, cent milliards akile yi loolu du leer cent dix neuf millions yi si ses loolu du leer cent huit milliards yi yu Siré loolu du leer sunu cent millions Cheikh Anne euh, Cheikh Kante ah voilà bóoram kuddu ba kon loolu du leer quatre vingt quatorze milliards yi nga xam ne Ousmane Sonko ba mu ko waxee ñëpp di tëb di dal borom euh, météo lu nekk mu mbéb mbéb yi mu jëlaat gis nga fu ñu mujjee. OFNAC mujj na joxe kii bi dëgg euh, euh, joxe na euh, nu mu tuddati joxe na nu mu tuddati waay waa OFNAC joxe nañ Seynabou Ndiaye joxe na ko wone ne li Ousmane ko waxoon muy dëgg kon 95 milliards yi ma Mamour la ak ñi mu àndal li ñu lekkoon ba léegi waxuñ ci kon loolu du leen ah kon léegi nañ bàyyi loolu rek 60 millions yi yu du Seydou Gueye loolu du leer 40 milliards building yi ñu doon réfectionné loolu du leer 30 millions fonciers yi loolu du leer 30 milliards euh, kii nu mu tuddati euh, bambiloor yi loolu du leer 29 milliards yu Prodac yi yu kii Mame Mbaye Niang moom it du leer 29 millions 29 euh, milliards péage bi ah Eiffage bi yooyu du leer yooyu moom warut a leer 13 milliards yu yooyu du leer. douze milliards big togo yi yooyu tamit du leer neuf virgule sept milliards navire bi bi nga xam ne moom Samuel Sarr lañ waxoon loolu du leer kon yooyu yëpp nañ ko bàyyi rek mu bañ a leer sept milliards fonds Taïwan yi yooyu yëpp du leer loolu ñoo ñoo ko war a leeral waa assemblée ñoo ko war a leeral moo tax ñu war a wooteel yeewi askan bi pour loolu ñu mun ko indiwaat yooyu ñu soxla bëgg mu leer lépp leer ne fang ku ci lekk ñu xam ne lekk na ku ci lekkul ñu setal la xam ne lekkoo dañ la doon taqal mais bàyyi lépp nga nag bu ñu leer na lépp di jaxasoo loolu duñ ko nangu di wax Macky Sall keroog dama dégg ñu ne député yi dañoo woote benn projet de loi boo xam ne pour OGM man bi ma ko déggee ba léegi mënumaa gëm ne loolu ba léegi député yi wote nañ ko man laa wax parce que mënuma jàpp ne Macky Sall mu jiite réew mi wax dëgg yàlla ñu jël ay produits di ko def ci ay lekk produit yooyu ñu ne fii ak quelques dangay am ay feebar feebar yooyu ay insuffisance rénale ay diabète lu nekk mën la ci dal man ma gëm ne ne loolu nit mën na ko signé ñu indi ko sa dëkk loolu moom wax dëgg yàlla man ba léegi mënuma gëm loo man di gëw ko xanaa loolu lu mu lu nit soxor soxor waroo soxore sa askan pour teg leen ay coono wala teg leen ay feebar ñun ku ci feebar boo demee hôpital kom li ma doon wax pour mu pour mu waar da ngay dem pour dee xanaa loolu nit sañul jël décret boobu di ko signé wala di ko bind wala di ko def quoi que ce man loolu moom gëwuma wax dëgg yàlla man gis naa ci ay vidéo gis naa ci ñuy ne voté nañ ko ci assemblée bi nanga man mais ba léegi man sama wax dëgg yàlla sama ngëm-ngëm mënuma gëm ne à ce point nit bi mën na soxaree noonu loolu moom mënuma ko gëm xaw ma nag lañ ko koy créel xaw ma dañ ko koy kiyal ne loolu def na ko wala signé na ko assemblée kii ko mais man daal loolu moom ko gëm signé wala def loo xam ne ni day rey ay sénégalais fii ak quelques yi nga xam ne ne ku balaa ngaa dee balaa ngaa dem hôpital sax dee nga ba pare parce que yow leer na ne balaa ngaa dem hôpital lay yóbbu moo lay njëkk a sonal parce que ñàkk gi nga ñàkk mooy tax doo mën a am dem hôpital médecin boo dem boo ñëwee ñu ne la loo doon def sa kër boo ba léegi ñëw hôpital parce que da nga yorul lu muy demee hôpital ku yorul du dem bu doon sa poos bi daraan ci da ngay dem loolu moo tax franchement ñu war a seet nag réew mi kon nag seet ñi nga xam ne ni ay nit ñoo xam ne ne bëgg nañ seen réew muy des gens yoo xam ne ay patriotes lañ comme genre Ousmane Sonko du pour dara nag li mu wax daf ko jëf le passé euh, le présent lépp mu ngi koy jëfe élection yi bokk ci mais baax na campagne ba àdduna Net Bi TV te bokku ci du doon député du doon conseiller du doon dara mais baax na ba lépp kon la ma waxante woon ak Sénégalais bu ngeen ma falee tamit dinaa ci bokk kon am na ñoo xam ne bu ñu leen bokkutoon am na ñoo xam ne ne du jëluñ leen woon dañoo génn wax kon ñooñu pouvoir a taxoon wala nomination moom faluñ ko nominé wuñ ko defuñ ko ci dara te dafa battre campagne ba lépp jeex kon gàcce ngalaama moom ak toutes les leaders yoo xam ne sacrifié wu nañ te xam ne ne duñu ñu jot sax ci euh, assemble bi buñ jógee ci loolu euh, Ousmane Sonko dafa dem saint bi euh, wax ne Sénégal Euh, adduna bi dañoo am ay réserve de gaz ñu ne réserve yooyu noonu moom moo wax de Ousmane Sonko wax am ñu ko démentir te li may koy démentir liñ ñu ko démentiré moom dafa ne ci Saint-Louis réserve gaz yi gën a bëri ci adduna Russie moo yor monopole bi moom yore na ko presque quatre cent euh, quarante sept yoo xam ne ne réserve bi pour cent yoo xam ne ne waa Russie ñoo ko yor ci àdduna moom ci boppam Ousmane ko mu waxaat mu nekk ci topp Russie kon mooy première puissance ci gaz loolu tax àdduna yëpp ragal ko parce que mooy yore gaz te Russie gis ngeen ni mu mel bombe atomique yi lu nekk Russie ko yor kon ñoom gaz bi ñu yor rek am na lu mu leen jëriñ ñu nekk ci topp ñu ne Iran ñu ne Iran am na 33 pour cent ci réserve de gaz moom Iran Ousmane ko ne ku ci topp ñu ne Sénégal ma ne Sénégal Sénégal gii nga xam ne ne ku xiif doo lekk ku mar tey nga dee ngeen ne ñoo moo nekk troisième boo xam ne moo yor gaz ci àdduna loolu mënuma ko dégg ba pare ne sept ans mun na financer àdduna bi yëpp sept kenn du fay gaz ci réserve bi mu yor. réservé muy 32 pour cent loolu Sénégal mën na ko yor ci Sénégal bi nga xam ne fii la ndóol fekk baax non c'est di jamais vu c'est du jamais vu Sénégal bi nga xam ne ñun dañoo tegoon ne ñun yoruñ salaamaaleykum gaz bi sax dañuy wax noonu mais ndekk ñun li ñuy yor ci réserve mun na financer àdduna ak ñun Sénégal pauvreté coono gi fi nekk ñu fiy dund métti gi ñuy dund ci moment bii ak li mu métti ñu ne ñun Sénégal bokk na ci troisième pays ci àdduna ñoo xam ne ñu yor nañ gaz boo xam ne mun nañ financer àdduna lu mot sept ans non c'est du jamais ñun ñun mun leen ravitailler ah ñun ñu yor 32 topp ci Iran ñu ne ku ci topp ñu ne Qatar ban Qatar Qatar bi nga xam ne naar yi ñu fi wane woon ba bu yàggul tuuti ñoom ñoo doon ku dañoo yor xaalis ba bu ñu bëggee cabinet dañuy jël ay nit ku ñuul di cabinet sa gémmiñ pour jox la xaalis Qatar mooy dëkk yoo xam ne ni tey ñëpp moom la ñu rêvé hôtel yu dàq ci àdduna bi fa la nekk mbumbaay bu gën a rafet ci foofu la nekk Qatar gi la nekk de ah immeuble yu dàq ci àdduna bakkan àjjana moom bu doon am ci àdduna ñu ne Qatar la ñu ne foofu kan moo ko yor ñoom ñoo yor 24 pour cent ñun Sénégal bi nga xam ne ñun fii la ñun mooy ñun ñooy maamu ndóol ñun population bi ñun ñoo yore 32 ñun ñu ëppale Qatar presque 8 pour cent te Qatar xoolal ni mu mel. sunu mbokk sénégalais yëpp a nga fay daw mbokk africain yëpp a nga fay daw tubaab yi sax ñu bëggee lu leen neex foofu la ñuy dem pour féexlu parce que mooy àjjanawu réew mi mooy àjjanawu euh, euh, dund euh, kii jamono ji te moom 24 ñun ñu am 32 ëppale ko presque 8 pour xoolal léegi na ñun dund gi ñuy dund ku feebar doo faj sunu hôpital yi ku ci ku ciy dem da ngay dee suuf yi joxe nañ ko te ñun am nañ pétrole am nañ gaz zircon bi ñëwagul te lii yëpp gaz bi rek lañ wax de waxuñu pétrole de waxuñ tamit phosphate ba de phosphate bi nga doon sunu or ba nga doon wax tamit gis nga comme la femme la dame bu ngay génnoon fan yee di wax ci euh, kii ci euh, or bi lu mu waxoon na ci or bi bu or bi ci or bi réseau bi yëpp ay coupé presque plus de d'or ñun ñu koy yor ak Sénégal ñun ñu ñu sonne xam ne ni ñun ñëpp kenn lekkatul bu suuf kenn naanatul mooy añ rek la réewum kër gi yëpp di def kër yëpp añ la ñuy def reer nga déburi naa ni jëndi fonde wala caagi wala cereeg meew lu ko waral parce que ñi ñu yor ñoom bëgguñ seen bopp lañ bëgg ak seen poos ak seen njaboot ñi fi wane seen ñeeñ seen doom yi ñii di fi yor des milliards di doxante ay oto yu jar milliards ba pare nag ñun nag baadoole yi nag ñun la ñuy sonal di dóor ak di def lu nekk moo tax sénégalais il est temps ñu changer suñu bopp il est temps ñu changer suñu pouvoir bi gis nga lii ñu jëm nii mooy tournant boo xam ne ne premièrement bi dem nañ ko muy élection locale yàlla defal ñu ci ndam ñu jëm ci deuxième tournant gis nga bii bu ñu rëccee parce que rasulaay kenn ku nekk di nga màtt sa loxo te xam nga ne di yaa ngi màtt sa bopp parce que dund gi métti gi mu métti saako ceeb ñu ne na ay vingt cinq mille bidon lu diwli ñu ne ne mille te doo ko gis kuy liggéey sax mënoo ko am waxuma ku liggéey te Sénégal ñi fii ñu sommé ñu ëpp fuuf ñuy liggéey ñun presque cinq pour cent ci réew mi liggéeyuñu ñi ci des ñu dañuy taaba taaba ñooñu nag la ñuy teg lu métti lii ñuy ne ay OGM moo tax loolu moom maa ngi ciy ñaan sénégalais bu dee Macky Sall loolu moo ko def man bett na ma wala soxor na parce que nga mën a jël ay produits yoo xam ne ne ak tôt ou tard ñuy rey man mënuma ko gëm moo tax nag wax dëgg yàlla a ah, man ba dernière xaw ma dernière centime mënuma gëm ne ne signature boobu Macky dina ko signé wax dëgg yàlla moom moo ko gëm nag wax dëgg yàlla signé pour ñuy def ay produits yoo xam ne produit chimique bio yoo xam ne ne day rey sa askan ci kanam parce que dinañ leen teg ay insuffisant rénal te ñuy am insuffisant rénal ñuy am problème mu kit pour yuñ leen defal ñoom ñi am xaalis sax mënuñ ci dund ñi yor milliards sa mënuñ ci dund waxuma laa ñun ñi nga xam ne ni ku ne ne euh, nu mu traité ticket 5000 francs sa doo dem hôpital boo moytu sa kër nga nar a dee te loolu nar laa dal bu la dalee foo jëm insuffisance rénale ku ko yor te yoroo lu suukar màdd foo jëm da ngay dee ah ku ci yor tension bu yéeg te leer ne boo demee ticket 5000 la da ngay dee waxuma ak leneen lu ci war a ñëw ñu ne loolu ñu ngi koy def ay piqûres yoo xam ne ne dafay. non loolu moom jeune man daal vraiment jeune man daal mënuma gëm loolu daal wax dëgg yàlla à ce point daal moo tax ñu ngi woo sénégalais que suba mooy tournant bu décisif na sénégalais yëpp fexe génn voté ma génn wote yeewi askan bi ëllëg ku fi sa góor doom doon góor jigéen yaa ko yóbboo sa bopp bu bennoo gañe ku fi sa doom bu jigéen doon lesbienne yaa ko yóbboo sa bopp ku fi ëllëg sa doom jàngul yaa ko yóbbul sa bopp santé bi la même chose éducation bi la même chose lépp lu dal sa njaboot yàlla dina la laaj ñu nga leen yore ak nan nga leen taxawoo moo tax kenn ku nekk loolu nga war a bàyyi sa xel ni ngay fexee ba ëllëg nga xam ne na yow def nga li nga waroon def ci sa njaboot mooy xeexal nga leen ñaan nga yàlla ki ñu yaakaar ci réew mi mu ñëw jël buñ ko jotee bu defee alhamdu wàccu nga bu ko deful yow wàcc nga ak ñoom loolu laa ci amoon lu muy wax di woo senegal yëpp que suba ñu génn voté massivement yeewi askan wi ba ñii nga xam ne ñooy ndëgëral góor jigéen wala ñii nga xam ne ne ñooy jàppale góor jigéen yi ak ay franc ñu yàlla jëlee leen fi ci jàmm ñu indi des vrais hommes ñoo xam ne ne gëm nañ diine gën nañ lislaam gën nañ suñu sang bu tedd bi yonent bi nga xam ne ne moo gën ci mbindeef ñi nga xam ne ne ñoom am nañ yaakaar ne mun nañ leen mun nañ ko taxaw ci àdduna ñu jéem a fal ñu seet ndax réew mi dina soppeeku bu ngeen ko deful nag Sénégal njorowal jàmm lu waaye xam boote doomam mooy ñii bu ñu jotaatee waxuma la sunu naf suni lañuy jël mais nit dina bëgg a noyyi sax ñoom ñi nekk ci APR téye sa noyyi te loolu am na ñu ñuy xoj di ñu fatt te deewaguñ kon nag boo nee leen continuer voter tant pour ñoom tant pis pour ñu kon moo tax nañu fexe génn voter ma lépp ci dal ci jàmm ku nekk na dem voté ci jàmm ñibbiwaat ci jàmm que gañ meilleur gagne te le meilleur c'est Yewwi laa ci amoon lu muy wax di remercier tous les sénégalais tous les patriotes di ñaan yàlla yal na yàlla def ci jàmm ci réew mi yàlla def barke ci réew mi ba xéewal gi nga xam ne ne yàlla indi na ko ci réew mi ñëpp gis ci seen bopp pétrole bi phosphate bi fer bi Falémé beeg lépp loo xam ne ne yàlla joxe nañu ko yàlla na yàlla naataange réew mi ba ñu mel ni ay Qatar comme ñun ñoo ko ëppale te moom moo ñu gën a taxaw kon mooy wane ne moom am na des hommes yoo xam ne ne ay nitam lañ ñoom fonk nañ seen nit ñun ñoo fonkul suñu nit parce que suñu njiit yi fonku ñu seen bopp lañ fonk ak seen njaboot moo tax ñu leen di wane seen doom yi di dawal oto yu luxe yi ñun ñu nekk ci car rapide yeeg njaganjaay yeeg tataay di paan ci yoon beeg defee li nga war a def ñu jàppale yóbbu ca kaso ba ki nga xam ne ne mooy sàcc suñu millions yi ñoom moom la ñuy topp ak ay motard ak moom la ñuy def leneen di ko escorter loolu la ñu waxoon nañ leen ñu sànni leen ci kàddu yooyu que sénégalais yëpp ñëw génn wote massivement yeewu askan bi loolu laa ci amoon lu muy wax wa asalaamaaleykum wa rahmatullah Diagne solution le vice coordinateur bu Pastef Médina di woo sénégalais mu fekk si ñu ci les fidèles du président Ousmane Sonko ba 2024 Sonko suñu yitte loolu laa ci amoon lu asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu Diagne Solution le vice coordinateur di nuyu ñëpp di baal ñëpp ci barke suñu sëriñ maam Dabba ak sunu mag yu baax yi Cheikh Amadou Bamba maam Maodo Malick ak euh, sunu sëriñ euh, sëriñ Babacar Sy radiyallahu taala xam naa ne ba subaak jàmm que yàlla na def vote bi jeex ci jàmm incha allah que le maire gagne allah mais lépp na jaar ci yoon rek jërëjëf